probio naturel mbokk yi seen jaaxle jeex ndax probio naturel daf leen indil ñaar ci ay de bio 100 naturel ñu defaree ko ci gàncax bi maa wax probio naturel daf leen indil probio naturel alde muy produit bi nga xamantane renforcé daf lay renforcer carrément ci walu sëy tagalé la ak ay jafé mom new katan ay mbiri tële nag moom koy dégg rek probio naturel simpi bi nak bi nak moy toppatoo sen yaram ci walu yax manam bolem lu ngeen amone ci ay ci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 Oh, oh, au campus oh campus Be my dage bag be la dogo mon campus Le devoir d'aujourd'hui mmh, C'était abordable. Mmh. Mmh. dis-moi, concernant l'exercice 2, qu'est-ce que tu as trouvé au niveau du résultat final En tout cas, Manuel doit faire su ma xasee ba pare ay devoir ni di ma taxawaa fii di si waxaat tu vois bu may réviser yoga, vous ma paree yëgoo donc sa yoon est si. et puis sax amul benn sens nga taxawaa fii di si casse-toi tu me déranges. yow ñàkk nga kersa de depuis quand t'es comme ça chi devoir mat bi saf xawma lu muy làkk doo sax gëm li ngay gis d'habitude professeur yi dañ doon wax naan ay jàng leen rek li ngeen jàng moom lañ leen di jox mais cette fois ci joxuñ ñu dara si luñ jàng xawma sax lan bind dama ba doyal tellement dafa saf xawma sax ndax dina am moyen mais du ba non commentaire. ah bon. Mhm. amul lu may wax si loolu. Mhm. ay feebar ma xaw ma si dara boo ma dugalee ci gàmm boobu rek fu may réeral. fàtte naa ni copie collé nga def. kon yow jànq danga bëgg a wax ne li nga def si biir dara baaxu si. dara baaxu si. te yow nga xam ne man copie collé laa def. jank ñame wo ma tay le non de la yaaka ah man de xawma ndax lima def baxna na ou pas en tout cas def na limay def sérieusement légui ni nga bëgg jobé ak man di duggal ci lo xamné xam ne la da nga nek di lool la wala du lool baxna benen yoon dootuma dala j'espère que toj ngeen devoir ya Seydina amé ah, kay bokku ci ça va toj devoir quoi motax lima def looloo recopier ba toog te man xaw ma sax ndax li ma def baax na mais en fait man je pensais pas que tu serais comme ça en fait parce que as l'air d'une fille cool te yaakaaroon naa ne t'es pas comme les autres te ay tànk jàmm moom fi indi en fait et là te voilà en train de me parler sur ce ton di ma ñàkkal kersa. yow sax noonu nga mel da ngaa ñàkk kersa te c'est pas la première fois je l'ai remarqué d'accord. mais si je me souviens si je ne me trompe pas autant pour moi depuis daaw ba problème ak toi wala kon c'est un compte à rendre mais on va ne keneen moo la ko jox nga ñëw régler avec moi. mais dafa amul sens en fait nga taxawaat fii di si wax def nga li nga wax def naa li ma wax donc euh, voilà. musuma defante ak yow en fait parce que je te pensais cool mais là là là boo bëggee mën na commencer aujourd'hui de parce que gis nga je me fais fi indi boo ko gay sama leneen lay mais vu que toi tu es agressive aujourd'hui je te laisse pas. ok. mais kon sais pas yéen na yéen Je mat bi dafa tellement. chii. non mais arrête. je toujours, jure compliqué Je ne sais ma def. ni tu devoir ba tu taxaw di di commenter devoir bi dafa patata. je te jure. après notre am ay dix huit dix ngeen bàyyi ñun ñu am ay 12 ak 13 comme d'habitude. <laughs> arrêtez je toujours jure dafa saf. sa copine ci yow la xool. copie collé. kon jàpp naa ni yéen a note une première sax bu am mel note bu baax. est-ce que doo wax ak kii rek da nga génnee ma ci seen wax. mais comment. waaw oui ma ana Khalil. Khalil dina se fekk génn ma jaaxoon naa dinaa ko fekk sax. Hmm. vu de loin la am ci yéen rek après ma ne xaar ma jaax.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 nekk di classe bi defoo lu muy tricher. pour lan. mooy tricher sama yëf la xamu naa jàng kay nu may def baa bi tricher rek. wala. ci catégorie étudiant bu garaaw nga nekk. muy ban. bu étudiant bi nga xamante ne ah. surveillant bu leen uufoon nii du leen tee tricher. déggoo ñu naan lu mu lëndëm lëndëm dañuy xuus jàll mooy jël mooy jël na lu lekk. mais nag jàng bi da ciy baax benn es de di jàng. ñàkk dara sax liggéeyal ko sa bopp xam ne yaa ko liggéey sa bopp. surtout loolu nag. boo yéen dafa mel ni ci mën ngeen nekk de. qui se sent mort naka sa mouché. affaire u yi ngeen di def di toog di gaaruwaale booy doon leen ay réel. wax ji su la rek c'est parce que.

xel ñoo la ko ëpp ñun dañuy jàng di ñàkk di fight di am lu ñu yow nga nekk fi di tricher yow ndam la yow ngay wax. booy man je me mens pas. tricheur la d'accord tricheur la mais du ma def affaire góor jigéen yi di toog di jëwee ak a gaaruwaale man su amee lu man naqari ci yéen damay dikk je dama leen koy wax face à face. Eh, yow amoo benn vergogne. daw ko tu fraude ñooy diriger réew mi te yow sama ay leader booy ñooy noosee sa ay show. après ngay comprendre yow fu ñu tase ñu bàccaat la yow. foo teg tiis kat daal mi day rëy. kooku semis bu ëpp bi. man kii bu ma ko supporter sax. dafa jaaxal sama xol quoi tàngaloo na ma quoi. non c'est autre chose. Ah, voilà ñu jël ko teg ko ci côté Sanjé quoi mu xam. mais mais yéegal nañ ko de. tàngaloo nañ ko de. waaw ma yaakaar sa dafay dóor.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 si nga ci kër gu amul ndey ak baay. gu dëgër. yàlla. naka mu. maa si ankul. taw fee xam. daw ay daw ngañ de. mais yow war ngaa xam ni man sël ci géew damay wëndeelu. c'est que yow xam nga li problème bi mooy boo ko bëggee teg ci man sël ci géew ak yooyu day après day metti mais xamal ni gars yi ñoom yéen a jugandoo. nga toog wóolu woo boo yaakamtee da ngay xaar da ngay toog déglu ñëw ndànk ma wax la lu bees tàq. lu bes tàq laa lay jox. lu mel noonu. ci biir fag bi laa jógee. fag bi. si. <laughs> gàcc tey ah fag. Kiné. Kiné Kiné. kil na ma de. la. si. saa loolu teel na de. pourquoi pas. yow fag bi fa commencé fréquenter nii yàggul nii nii nii benn instant gis nga fa ab kinne nii ba ba mu kil la. yow yogoo ni ñun dañuy dem si gaawaay ñëw si gaawaay lépp luñ soxla dañ koy jël si gaawaay fët fët. léegi loo programme ci kinne. mais mais kinne. dama koy jël def ci lima yek yëg parce que man taluma dara li bëgg rek laa tal damay daras dem si moom jàpp ko naan mu xew loolu kenn mënu si dara doole kañ waxtaan quoi ni benn instant yow tu sais que tu sais que ne ni ngay duggee fac di dugg ko génn di dugalanteeg booy yi c'est pas sûr job bu ci lii duggee rek dina am leneen lu mu andi ay fàttaliku laa fois passé jamono jee ci ginnaaw booy ñu ngi leen yónni ñoo xam dañuy inspectionné seen biir chambre yi benn par benn di ci génne ay gourde ak ay matraque lu nekk ñu ko ci génne supposons jamono ji bu ñu defaatee loolu génnee fa benn génnee fa lenn loo xam ne yaa ko jox booy booy mun ñëw retenir affaire bi mun ñu koo téye dañuy ndellu. dañuy ndellu naajement d'accord mais benn question dong laa lay poser. mooy yow. waaw ah. may wax dëgg. wala da may jox conseil. ñaar yëpp laa boole ci yow. da nga juum ken ngay waxal man la kan ah xamatu sa bop non dama la bëgg laaj man la kan ba xam yow xam nga ki ngay waxal wala xamoo ki ngay waxal mais maag yow romb nañ ci milieu bi ñu nekk am na loo xam bu dee raam di jëm si si ñun wala duma xaar keneen di ñu ko dog dogal man maa ci jéem a jëkk a taxaw jéem ko freiné mais milieu bii nga dugg nii c'est pas sûr si job bi nii àndut. xam nga la bëgg xam nga la bëgg yow moy nga xalam sa xel wala nga rouler sa ya, yow ya tit ndogalaan di xalaat ay boom ay policier ay cest ay nangam ak nangam bande xel la lima la wax ni duma ci rocc deureum dina def li ma bëgg nga def nga bëgg te lu ma gisee buum bàyyi ma wax la ben affaire defal li nga bëgg borom xel nga mais ñuy top say tank ay borom xel lañu amoo xel borom xel nga mais ñi topp say tànk ay borom xel lañ non boo amoon xel yaa jiitu ma topp sa ginnaaw kumba du jiite yoon ay xaar ba jamono neex taluma dara li bëgg rek laa tal Bonsoir chers étudiants, ainsi que notre cher professeur. Euh, c'est un immense plaisir et un grand honneur d'être là aujourd'hui devant vous pour vous présenter le concours de débattons qui va opposer la licence 1 et la licence 2 euh, de la science économique euh, et de gestion avec comme thème le financement bancaire des petites et moyennes entreprises. Sans plus tarder, nous allons commencer par la présentation des débatteurs. Ainsi, je déclare ouvert le débat et bonne chance aux débatteurs. Merci. Auguste Assemblée, Honorable membre du jury, chers co-débatteurs, bonsoir. À la croisée de nos rapports avec les phénomènes de la vie et ceux de l'existence se posent des questions. Des questions qui, en une certaine mesure, suscitent de très profondes réflexions, mais des questions qui parfois sont déjà répondues par les réalités sociales, politique ou économique de notre existence. Actuellement, la question qui se pose est la suivante. On va juste se contenter de savoir quand est-ce qu'un pays est appelé pays en voie de développement et quel rôle jouent les PME là-dessus. Alors, un pays est dit en voie de développement s'il parvient à asseoir à une économie fiable. Et tout cela grâce à sa croissance et tous ses agrégants. Les PME, communément appelées petites et moyennes entreprises, constituent un levier essentiel dans la mesure où elles contribuent à la création d'emplois et de richesses pour l'économie nationale. En raison de leur importance, des acteurs ont essayé de mettre en place un système de financement bancaire pour les petites et moyennes entreprises exclues du système bancaire classique. Donc sans plus tarder, je vais donner à euh, mon camarade Seydina la parole. Il va vous en dire plus. Soyez pas paresseux, vous pouvez prendre des notes. Merci Momo de m'avoir donné la parole. Merci. Sans plus tarder, on va continuer sur cette lancée. Pour rappel, les PME constituent un point puissant du secteur privé et représente actuellement 80 voire même 90% du tissu économique et concentre environ 30% des emplois sénégalais. Voyez-vous bien, 30% des emplois sénégalais. Les partenaires au développement indiquent qu'en matière de financement, il est envisagé de mettre en œuvre une démarche novatrice avec les systèmes classiques d'accès au crédit bancaire. Sans plus tarder, on va donner la parole à, Khalil vous donner la suite. Merci, chers condisciples, de m'avoir donné la parole. Force est d'admettre que les petites et moyennes entreprises au Sénégal souffrent. Et au moment où l'on aspire à une émergence dans les années à venir, l'accès au financement des petites et moyennes entreprises est à un niveau alarmant au niveau de ce pays. Des études ont montré que 80%, je vous dis bien, 80% de ces entreprises n'ont pas accès au financement par défaut de garantie. Et à ces chiffres afférents, il faudra aussi ajouter leur taux de mortalité. Car selon l'ADPMO, 80%, je vous dis bien, 80% de ces entreprises meurent avant même d'atteindre leurs 5 années d'existence. De ce fait, elles font face à des contraintes de nature diverse. Là, chers camarades, je suis obligé de couper. Excusez-moi, cher euh, membre du jury il est, en train de nous faire savoir que l'État n'aide pas du tout les, les PME. C'est une assertion qui est assez fausse. Les PME restent le moteur de la croissance économique de notre pays. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays, monsieur. C'est ce qui se passe. C'est un levier essentiel pour le secteur privé. Et depuis quelques années maintenant, l'État est en train de mettre la main à la patte..! pour essayer de financer les petites et moyennes entreprises et venir aussi nous, nous faire savoir que voilà, l'État n'est pas du tout les, les, PME, alors que les PME elles-mêmes représentent 80 90% des entreprises sénégalaises, ce serait quand même un petit peu suicidaire de ne pas financer ou d'aider au moins l'essentiel, je te dis bien l'essentiel de, des entreprises sénégalaises. Là, je te rejoins, mon cher camarade. Ce que vous dites là, c'est très important. Par contre, vous, vos propos sont infondés. Qu'est-ce qui justifie vos chiffres Déjà, vos chiffres ne sont pas en actualité. Là, je vous arrête. Vous n'êtes ni au marché ni dans un meeting politique pour se comporter comme une griotte. C'est quoi ces manières Si ça continue comme ça, vous aurez des points en moins. J'espère que je me suis très bien fait comprendre. Professeur, des questions s'il vous plaît. Maintenant, oui. asseyez-vous. Bien, un peu de retenue, un peu de retenue chers co-débatteurs, vous savez quoi, le but de ce débat, c'est de mettre en exergue la force de l'argument, pas le contraire. Mais moi, j'avais une question à vous poser. Pourquoi la plupart des financements bancaires vont vers les grandes entreprises plutôt, au détriment des PME Voilà, c'est ça ma question. Si vous pouvez me répondre. professeur, j'espère que cette question a été déjà répondue. Mais comme on le dit par ailleurs, la répétition est juste pédagogique. Vous nous avez posé la question à savoir que pourquoi les petites et moyennes entreprises ne sont pas financées par les banques. Comme je l'avais dit tantôt, les petites et moyennes entreprises manquent de garanties. Et serre co-débatteur, Auguste Ensemble, Force est d'admettre que, je vous dis bien, la plupart de ces grandes entreprises ne sont pas des entreprises sénégalaises au vrai sens du terme. Et par contre, c'est eux qui dégagent des chiffres d'affaires colossaux. Et nos petites et moyennes entreprises, créées par des Sénégalais et pour des Sénégalais, ne parviennent pas à concrétiser leurs projets juste par défaut de garantie. Les banques ne prennent pas de risques. Des entreprises étrangères dans notre pays avec notre financement bancaire. Voyez-vous bien. Effectivement, monsieur. Euh, pour appuyer mon camarade, nous allons en venir euh, à cette prise de risque. Ici, vous voyez une entreprise. Pour bénéficier d'un financement, la banque a besoin de garanties, c'est-à-dire la banque a besoin de savoir s'il y a pagaille. Est-ce que j'aurai des biens à saisir Maintenant, si c'est une entreprise qui n'a rien d'autre que son nom et ses, objectifs, ses rêves, la banque ne va pas prendre le risque de, le financer parce que si ça tourne mal, la banque va perdre. Par contre, les grandes entreprises qui ont déjà, on peut dire, réussi, bénéficient de ces financements. Et voilà, les plus, les plus grandes s'enrichissent, les plus petites meurent. C'est comme l'exemple des entreprises qui demandent plus de 5 ans d'expérience à nous, les étudiants, pour bénéficier d'un poste. C'est-à-dire, tu demandes 5 ans d'expérience à une personne que, euh, et ces 5 ans d'expérience-là, tu ne veux pas lui donner la chance d'avoir une année d'expérience et tu lui imposes 5 ans d'expérience avant de le prendre. Donc, je pense que pour le cas de ces entreprises, c'est l'État qui devait prendre euh, ses responsabilités, les soutenir, les aider pour gravir les gestions. Parce que la réussite de ces entreprises, c'est sa réussite parce qu'ils créent des emplois pour lui aider. Merci beaucoup.

Les wadio vide de corps yow moom da plein. plein de corps plein de cerveau. c'est normal je suis ton âme <laughs> sinon où sont les autres. gisuma leen sax Je dem nañ. xanaa sañ ñoo ñu fi ah. bonsoir. ça va ça va def. ça va bien. juste de passage pour vous féliciter. Ah, merci beaucoup. Merci à toi également parce que toi aussi tu t'es bien débattu. Juste que nous sommes en Il faut que nous fassions quoi. Pas grave, nous sommes Mais bon, c'est normal, vous êtes dans deuxième année. Grave, nous sommes Mais prochaine fois. C'est normal, mais nous sommes en l'université. faut nous. Ok, je vais les D'accord, allez, pour toi. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est Qui Mère, <laughs> Pourtant, elle est très sympa. Eh elle bon, non, avec toi aussi. <laughs>